jërë ngeen jëf seen ànd bi ngeen di ànd ak seen chaîne préférée du banlieue info TV ngeen koy am ci internet bi ci www.banlieue.com. tey jii nag ñu ngi nii seet si suñu mbokki guinéens yi eh, ñu ngi fii ci Thiaroye fii ñuy tuddee pakk euh, carotte eh, tey jii gis ngeen élection présidentielle bi ñu amee fee nga xam ne moom moo nekk ca Guinée Conakry eh, tendance yi ñu ngi génn quand pouvoir bi ñee na ñoom ñoo gagné ni ki noonu seetlu daloon jàll tamit nee na moom moo gagné élection yi. léegi nag comme résultat yi génnagut résultat officiel yi génnagut résultat provisoire yi ñooy génn dañuy dem seeti suñu mbokki guinéen yi nga xam ne dañoo nekk fii ci Sénégal ah ñu daal di leen laaj lan mooy seen yëg-yëg ak nan lañu ñu jàngatee li nga xam ne moom moo nekk élection présidentielle yi nga xam ne moom moo am ca Guinée le 18 octobre bi passé. ñu ngi nii ak suñu benn frère boo xamee ni ab guinéen la ñu bàyyi ko mu présenté wu mu wax ñu lan moom moo nekk réaction ak li nga xam ne loolu la jàngat ci élection présidentielle yi. ñu génne nii le 18 octobre fee ca Guinée Conakry. alhamdulilah yow noo tudd. Juma Bari. Juma Bari Juma Bari élection présidentielle nan nga ko gisee. a ah, noon doy na waar daal affaire bi moom daal crise la ñu def quoi parce que jàngat luñ ci jàngat moom mooy gis nañ ko rek comme d'habitude gis nañ ko deux fois daanaka troisième fois bi mooy ñëw nii waaw ñun nag suñu sañoon on aimerait voir un changement dans notre pays quoi waaw. donc ñun gis nañ ne euh, Sénégal amutoon ay bureau de vote en tant que guinéen yow loolu nan nga ko nan nga ko nan nga koy expliquer. ah mais comme d'habitude rek comme ñu koy defee ñoom ñoo xam nu ñuy doxalee foofu parce que ñun bu ñu sañoo ñun tam dañuy voter parce que on est des guinéens on est quand même des guinéens de toute façon tamit am nañ droit plein droit bu ñu tam bëgg nañ voter waaw bu ñu sañoon dañuy voter xam yow yow yow su ma la déggee dafa mel ni ci ci camp Cellou Dalein Diallo nga nekk parce que nee nga danga wax ne da ngaa bëgg changement kon Cellou une fois mu accédé au pouvoir lan ngay xaar ci moom. bon man nekkaluma selu kese. Mhm. man képp kuy changé sama pays laa nekkal. Mhm. ku bëgg sama pays ma bëgg sa ma bëgg la. Mhm. ku bañ sama pays du ma la bëgg. man loolu laa fi nekkee xaw aw ma racial ñëpp laa yamale quoi. parce que je suis du Pulo du Susu du Maninke du Tooma du Joola. parce que boo nekkee Guinée rek. jeex na ndax da jàpp ne am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom dañoo bañ euh, euh, réewum Guinée wala dañoo bañ doomu Guinée foofu noonu ci biir candidat ci les douze candidats da jàpp ne am na kenn ko xamee ne dafa bañ euh, Guinée. Mhm. non loolu yàgg na fa parce que affaire u racial la mais nag ñaan naa yàlla man si sama côté yàlla na ko fa yàlla jëlee affaire racial moo am la mais dañuy ñaan yàlla à chaque fois rek mu jóge fa parce que indifférence bu amee si nit ñi rek loolu du doxal mais ñaan nañ yàlla loolu jóge fa daal incha allah. jërëjëf euh, Kouba ñu ngi fi ak beneen frère boo xamee ne moom tamit guinéen la mu ngi wuyoo ci tur Mouhamed Bari Mouhamed ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. Mouhamed xoolal xoolal caméra yow dafa mel ni da ngaa ragal Alpha Condé. dëgg la ragal dafa mel da ngaa ragal Condé. Elsa yi kay moom kese laa ñeme sama dañu bëgg mu bàyyi pouvoir bi tout tranquille ah loolu nga bëgg. waaw waaw kon yow yaa ngi ci cancelu. ah man kay moom maa ngi si cancelu incha allah. Eh, le fait que woote wu loolu nan la leen def yéen en tant que guinéen. ah en ñun de moom ñu ngi toog vraiment sonn si sonn tamit encore si euh, si Cellou Dalein dañu bëgg mu am pouvoir bi incha allah Guinée. Mhm. donc bu ñu ci euh, tendance waaw incha allah su bu dee kay yàlla dogal na loolu kay moom ren bi moom moom moo ko moom mais nag su bu dee tamit yàlla dogal na tamit yeneen mun na nekk ñu sàcc ko ñu jël ko si loxoom. yow yaakaar nga ne nañ ko sàcc. ah man kay moom yaakaar naa sàcc nañ ko ba pare. Ah, man loolu laa yaakaar parce ngi wax wax wax mais xam daal politique la rek. mais mbar tiitoo leen benn yoon. tiit man de moom tiituma incha allah yàlla moo yor yàlla ñu jox pouvoir bi moom. le fait kii nee na moom moo gagné keneen ki tamit nee na moom moo gagné ndax yaakaaruloo loolu mën na fa indi histoire. non en ah, histoire puisque suñu xàccee histoire bi histoire day am puisque maa ñun de moom jël victoire bi ba pare mais suñu soo suñu gisee suñu daanu kay moom ñu daan xam nga loolu histoire day am waaw. merci Mouhamed Ba. voilà ñu ngi nii ak beneen frère boo xamee ne moom tamit ab Guinéen la gannaaw ba ñu waxtaanee suñu yeneen ñaari interlocuteurs yi kii tamit daf ciy bëgg àddu ndax xam ngeen ne élection présidentielle yi. ñu doon amal 18 octobre fee ca Guinée Conakry ba léegi pund ba wureegul parce que Cellou nee na moom moo gagné Alpha Condé nee na moom moo gagné léegi résultat yi yaa ngi génn par ndànk-ndànk donc résultat provisoire yi li ñu wanee gum am na ñenn ñoo xam ne nee nañ Cellou moo gagné mais ci camp pouvoir bi tamit gis nañ ne Alpha Condé nee na moom moo gagné élection yi gine yi nag ñu ngi nii fii ci Sénégal fii ñoom tamit ñu ngi koy dund bu baax a baax ñu ngi nii ak beneen frère ku baax ñu ngi lay nuyu ngi leen di fay ci loo ne. rek Bari Sanusi. Bari Sanusi élection présidentielle yi voté nañ ko le 18 octobre fii passé en tant que guinéen yéen voté woo leen yeneen réew yi voté nañ yow loolu nan nga ko jàngatee. non loolu moom ñun dañ ciy am xel ñaar quoi ndaxte ci yoon moom Sénégal ak Guinée ñoo bokk ndey a comme ni ñëpp voté ndax nous sommes guinéens bon ndaxte ñun dañoo bëgg képp koo xamante ne mooy defar la Eh, mu toog ci ci ci ci ci président bi. Mhm. daal en tout cas daal loolu lañ bëgg. Mhm. waaw yow euh, ci ci kan ci kan nga doon xaar pour moom mu jël euh, réew mi maanaam diggante Sidy Lo ak yow yaa ngi woon ci ban temps non dëgg fa yàlla man moom ndax eh, seetlu moom bëgg yéene naa ko ndax nit ñi bëgg nañ ko. Mhm. nit ñi bëgg nañ ko trop moo tax ma yéene ko ko ndam ni mhm. waaw loolu moom bëgg naa ko moo gagné seetlu nee na moo gagné ndax loolu en tant que Guinée yaa ngi fa bàyyi sa sa sa njaboot ndax amuloo lenn loo xam ne da ngay toog di tiit ci loolu. non ci yoon moom dama ciy tiit ndaxte boo xëyee da ngay ut sa wërsëg xam nga ndax moom sellu daleen sonn na ci comme Condé moom ni mu ci sonnee woon ndax moom Condé dafa yàggal lijjanti loolu doo kaa am sellu tamit sonn na ci trop ci yoon moom war nañ ko ko jox quoi waaw allez merci beaucoup voilà ñu ngi nii ak beneen Guinéen boo xam ne moom tamit ab coiffeur la mu yor place am fii di ci daan dooleem gannaaw du ñu introsé ñeneen ñi dañuy ñëw moom tamit mu wax ñu lan moom mooy li nga xam ne loolu la yëg exactement ci élection présidentielle yi nga xam ne dañ koo amal fee ci Guinée Conakry le 18 octobre bi passé ndax fu mu toll nii wax dëgg fa yàlla euh, bu ñu waxee dëgg rek guinéens yi fu mu toll nii ñu ngi jaaxle parce que xamaguñ ba léegi fan lay wënneen du mujj ak gëtam ku baax ñu ngi leen waaw ñu ngi leen di fay. ci loo sant bër. yow tur bi nan la. maa ngi tudd Alpha Oumar Bari. Alpha Oumar Bari noo gisee élection présidentielle yi am Guinée Conakry dimanche passé. waaw gisee naa ko vraiment élection yi muy noonu gis naa ko foo xamante ne xaaruma ko fa woon surtout élection yi nu mu demee ni ni ni ni ni ba résultat yi nu muy génnee ak ñun fu ñu ko yaakaare woon gars yi naruñu ko fa yóbbu muy lan parce que mun naa ne di monde entier ñëpp xam nañ ne Cellou Dalein daanaka mooy gagné te gagné na déjà parce que 2010 élection yi def nañ ko ñëpp gis nañu li fa jàll ak li fa xewoon si wàllum Alpha Condé Alpha Condé ba mu génnee la Guinée ba léegi ñun mosuñoo am loo xamante ne lii suñu bànneex la ci biir Guinée parce que boo xoolee si wàllum 28 septembre dafa suulu mais Alpha Condé bokk na ci Alpha Condé ba mu faloo ba léegi victime yi tëdd biir gine kenn musul dem dem rendre hommage ñi nga xamante ne dañ leen a rayal dañ leen a tooñ dañ leen a gëdd yàq seen kër kenn musul dem def loolu te bëri na te victime yi fa dee yëpp ay guinéen lañu du ma ne pël lañu du ma ne Sénégal du ma ne lii lañu mais ay guinéen lañu la mën a wax loolu teguñu ko fenn loolu moo tax si Alpha Condé dañ dañ cee sonn nañu abal pouvoir bi te yàlla tax surtout gagné nañ ko waru si waru si sax xëccaat parce que li si tooñ la bokk ñu ngi ñaan nag yeneen réew yi si des ñoo xamante ne am nañ ci doole am nañ ci lii ñi gën cee taxaw bi yoon bëgguñu ko balaa ñoo indi loo xamante ne warul woon xew ci biir en tant que Guinée bëgguñu ko fa mais nañ ñu jàppale Cellou Dalein moo gañe buñ ko tooñ buñ ko tooñ selu Dalein moo gagné moo gañe buñ ko tooñ man moom sama man si man Sénégal fii fépp fu mu mënoon ne bu fekkoon que ne dañoo nangu ñun ñu voté Cellou Dalein laay votel avec plaisir parce que je suis un Guinéen man lool loolu moom gëm naa ko fi te xam naa nag bëri naa fi nag samay morom ñu mel ni comme ni man ñoo xamante ne dañoo sonn li xew ci biir Guinée parce que suñ famille mu ngi foofu Alpha Condé lu mu fa def yëpp loo xamante ne ñun ñu ngi soxla leneen chômage yi bëri nañu ñi jàng ba toog diplômé wu toog ñoo xamante ne yoruñu liggéey bara marché baa ngi ni fii boo fi compté jeunes yi bëri nañ fi ñoo xamante ne dañoo jàng ba diplômé wu ñëw fii di yenu lu waral loolu parce que suñu réew mi dañoo manqué boo xa président bu baax laay naan dañoo manqué président bu baax kon na ngeen ñu jàppale te yàlla tax Alpha Condé na dem mu aan ñu réew mi. gannaaw bi ñu dégloo waaj yi nee na la xaw ci gine métti na ko trop parce que Alpha Condé dafa war a bàyyi réew mi ab abal waa Guinée réew mi su ko defee ñoom ñu am benn changement. parce que jot na am na lenn sax loo xam ne jot na ko wax parce que li ko gën a métti moom mooy waa euh, Guinée lu bëree bëri dafay am. ci ay ay nit ñoo xam ne dañuy ñàkk seen i bakkan te dara waral ko lu dul pouvoir bi ñoom ñoo ciy teg seen i tànk mu doon loo xam ne da koo métti lu bu baax a baax. ñu ngi fii ak beneen frère boo xamee ni euh, moom tamit xëy na da ciy sànni kàddu mu wax lan mooy li nga xam ne moo nekk par rapport ak euh, élection présidentielle yi nga xam ne dafa am Guinée Conakry ci dimanche bi passé moom tamit mu wax ñu lan moom moo nekk gis-gisam ci loolu. ku ba si loo ne. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax. yow tur bi la. dafa mel ni yow suma ma juumut yow nee nañ sénégalo ivoirien nga. Mhm. waaw loolu am na. mais yaa ngi fii ci biir euh, communauté guinéenne kon am nga benn jàngat boo xam ne da koy def ci élection présidentielle yi passé ci Guinée Conakry yow élection yi nan nga ko gisee. waaw élection yi ni ma ko gisee li nga wax dëgg la sayga Afrique laay wax sax souvent li fi am ñun ñëpp ay doomu africain lañ. Mhm. tubaab bi waru ñëw liggéeyal suñu réew ñun ñoo ko war a liggéeyal suñu réew d'abord. Mhm. muy Côte d'Ivoire tamit encore ndax Afrique lépp benn la comme ni États-Unis d'Amérique amee Afrique tamit war na toll foofu. troisième mandat bi nga xamante ni imposé na ko Guinée te jaar ci référendum boo xamante ni. ba léegi nit ñaa ngi koy euh, constaté naan référendum bi jaarul yoon. mu ñëw fii tamit résultat yi ñee ngi naan cinquante huit pour cent ñee ngi naan trente sept pour cent yu ne ah. mais luy gën a wóor li nga xamante ni mooy journaliste yi ndax dama lendemain élection yi. dama yeewu gis euh, journaux sénégalais yu bari titre ne. Euh, Sellou euh, président mhm. dal na ci sax euh, la turbine mën naa ko cité mhm. mu ne Sellou dal na ci mhm. loolu lañ titré ci la turbine te ñooñ tamit dañoo am ñoo xamante ne dañ leen teewal ci réew mi ñu xam élection yi nu muy demee même te mën naa ci cité tamit ñi nga xamante ni mooy Barka Ba bu TFM waaw ak um, Barthélemy Ngom ñooñ tamit envoyé nañ leen foofu ci pour ñu nekk foofu noonu di xool élection yi nu mu demee li nga xamante ni mooy yoon daal Sellou dafa gagné élection yi ci lu leer naññi Alpha Condé dafa doon xeex démocratie tey ba nga xam ne ñu jox ko Guinée démocratie boobu nag na ko continuer ndaxte ñun ñëpp ñoom ñi nga xamante ni ñooy présidence yi ñu yi ñoom seeni doom nekkuñu foofu lay ñàkk Guinée mooy perte waaw so doomu Guinée yi ñooy génn ci mbedd mi ñu leen di rey ñu leen di bëm ci lu tegewul fenn di yàq seen alal di yàq seen kër lool lu mën a ñàkk la ci Afrique ñun ñëpp ay africain lañ nañu gëm kenn ku ne boo fi defee dix ans douze ans wax dëgg yàlla war nga awal keneen mu ñëw toog liggéey ndax réew ñëpp ko bokk ñëpp ko war a liggéey ci yoon waaw loolu daal gis naa ko ci élection yi élection yi moom franchement naqari na ñëpp waaw loolu daal lañ ci xalaat ci suñu gis-gis mbokk yi gannaaw bi ñu jëlee ñaar wala ñett wala ci ñeent ci ay suñuy suñuy suñuy interlocuteur mbokk yi jamono ñu toll ni nag dañuy dem jël ñi nga xam ne moom moo ñeer ko soxna yi ndax ku wax góor wax jigéen immigration laajut góor dong ndax fu góor dem war na faa mën a yóbbaale njabootam loolu moo tax communauté guinéenne bi boo xoolee am na soxna yoo xamante ne ñoom ñu ngi nii war nañ ci wax li nga xam ne loolu moom moo nekk seen gis-gis kon nag dañuy dem léegi léegi jël kenn ci waa euh, Guinée moom mooy soxna yi ñoom tamit ñu wax lan moom moo li nga xam ne loolu la ñu yëg ci élection présidentielle yi nañ dem léegi léegi. comme ni ma leen ko waxee woon sànq guinéen yi ñoom tamit ci mbir mi la bokk ndax élection présidentielle bu ñu ko waxee góor ak jigéen moom moo tax ñuy wax. kon nag jóge ni ak beneen soxna boo xamee ne ab guinéen la mu fas yéene wax li nga xam ne loolu moo nekk gis-gisam ci élection présidentielle yi kon soxna si hono mbaɗɗa jontum hono golle ɗen yaade seeɗa eyi an honno woni inde nde ba hasana ba hasana tum hono jiiruɗa élection wanɗo to to euh, guine conakiri wanɗo ɗum mboɓe waɗi o le 18 octobre oɗo jawtu ɗon minen komin hiiɗon kon tigi tigi yooɓe wallu gañiiɓe ɓen hetta laamu mum ngun pasque ɓe wino min troisiéme mandat ala donc ɓe waɗani min kadi troisiéme mandat ari kadi ha foppo andi ko hombo gagni ɓe dari ke ɓe inni wona on ɗon gagni minen komin faala joni ko lanɗo kesso par ce que konde laami min hiyali ko golli meɗen ɗo hayso meɗen faala hotude kamen min wawata yawde frontiére ji ɗi fopno ferma donc meɗen woni ɗo mais ina ta koye prison me woni par ce que miɗen yaltude meɗen gollude mhm. kono sa woni sare nokkude taw haɗa wawi hotude kama hara genake mhm. donc komin faala ko ɓuttu e jaam mhm. e salam yooɓe wallu men min hoota ka amen no ɓuttira no wa'a hay e nokku donc minen ko ɗum min wallu men min heeɓa jang e salam ka amen eyyi an nden eh, est nden a wonani e hulde ɓaydi oɗon ɗo woni ɗo e, e sénégal ɗo bandiraɓe momɓe ɓe toto guine to so tawi woni hannde o wi ko gagni oɗo wi ko kañum gagni ina wawi addude histoire nden noon an est a jooɗaki sa lelima korɗa ɗanode guir aɗa aɗa huuli minen nini hayso min waali ke min ɗanota mawɓe amen ɓenno toon mhm. kotiraɓe amen no toon mhm. jajiraɓe amen no toon mhm. woɓɓe amen no ga modiɓe amen ɓenno toon donc hayso min waali ke min wawata ɗanade yooɓe wallu min no saare nden ɓuttira si tawi sen on no faalayo sarden ɓottu yooɓe joni no gañi ɗon par ce que foppo no andi ko élage sellu gañi donc yooɓe wallumen no saara nden ɓuttira ko kamɓe wawatta wadde no saara nden ɓuttira ko kamɓe watta no saara nde wonira kere par ce que si gañi ɗon hendaki 2010 ɓe wi ko alpha konde gañi foppo ab setti donc 2020 ɗo min wata absetande ɓe ko sellu ko alpha konde gañi harna kanko gañi eyyi ok merci beaucoup pour ma résumé ci li nga xam ne loolu la jot a wax fii nii moom soxna si nee na am na lu ko métti lool ndax dañoo xëy ci élection présidentielle yi le lendemain ñu ne Cellou Dalein Diallo moom ñu xëyaat ci ëllëg sa ñu ne déedéet Cellou Dalein Diallo gañewut mu doon loo xamee dafa metti mboolem koo xamee ne dafa nekk waa gine moom lu mu ci dolli nee na fu mu toll ni ñoom bu ñu tëddee du ñu nelaw ndax li waral lool na moom mooy seen njaboot seen i yaay seen i doom seen ñëpp ñu ngi foofu noonu ca gine ñoom mënuñoo toog nekk fii ci senegal seen ñooñ nekk ca Guinée te leeru leen ba xam ndax ñoom ñu ngi ci jàmm am déet loolu doon na loo xamee ne lu leen ëlëm loolu la niki noonu itam nee na fenn fu ci nekk taxul mu mu demee noonu mu développé mais la mu gis Guinée loolu noonu amul fenn kon donc moom am na yaakaar ne président bu bees ñoom soxla nañ ko bu baax a baax ngir lan ñu am benn changement boo xamee ne ñu mën a évoluer seen i pays ñu mën a développer seen i pays ci contexte boobu noonu moom foofu loonu la waxee kon soxna si eh, min ngaccumaa rek kaala xoko mbatal Euh, noddata e guine ɓe wonɓe ɗo e sénégal fois fof hoko haalantaɓe min komi haalanta jeunesse on donc ɓe ɓayɓe fodduno men troisiére mandat ala e ngal meɗen décide si allah jaaɓi sago amen hara menen kadi meɗen laggine noon si mayete maye so wuurete wuure kono ɓe jonnayi ifdg laamu makko ngo par que ko kanko gagné ok nee na ci li nga xam ne moom la ñu waxoon ndax 2010 dañ ne Alpha Condé ñëpp d' accord Cellou Dalein Diallo moom moo gagné nañ ko jox pouvoir bi ndax ñoom tamit ñoom pare nañ nag pour def lépp ci li nga xam ne ba Cellou Dalein Diallo jot li nga xam ne moom moo nekk pouvoir bi. kon mu ngi invité mboolem koo xamee ne ab guinéen la nga daal di teg sa tànk fi nga xamee ne moom mooy ci parti bi nga xam ne moo nekk le potentiel candidat aux élections présidentielles en Guinée moom mooy kan di Cellou Dalein Diallo kon nañ dem rek xool beneen soxna balaa ñuy dem. gannaaw bi ñu jëlee soxna soosu nga xam ne moom ci pulaar la doon wax am nañ keneen koo xamee ni moom mën naa wax ci li nga xam ne moom moo nekk wolof soxna si moom wax na ci lu bëree bëri ci wàllum changement bi nga xam ne moom bëgg na ko léegi dañuy taataan kaddu soxna si ñu xool ba xam moom tamit lan moo nekk ay kaddoom par rapport ci élection présidentielle yi nga xam ne dañoo amoon fekk Guinée Conakry kon soxna si maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi si jaamu bu baax. maa ngi sant bu baax a baax. élection présidentielle yi am Guinée noonu nga ko jàngatee. ah ni ma ko jàngatee mooy léegi ñu tam suñu dëkk bi dañoo bëgg loo xamante ne jàmm ak jërim njërimu réew mi su fekkente ne gagné rek la ñuy wax ak am mbooloo ñëpp xam nañu ku wax rek dëgg te yàlla tax. kee mooy lu mu tudd sax lu mu tudd sax seetlu dale mooy gagné mooy ku tudd koo xamante ne Alpha mhm. léegi nag ñoom ñaar nag comme léegi kee tamit dafa nar a xëccu loo xamante ne warute am parce que moom yàlla def na ne gagné na ko premier depuis le début bu ñu xoolee depuis le début moom mooy ki ko gañe mais c'est que ñoom ñaar dañoo bokkul bëgg-bëgg su ndax xam na ne ku bëgg sa réew bëgg sa aksan aksan askan doo bëgg loo xamante ne da leen di da leen di lor ëllëg xam nga koo xamante ne dafa ñëw ci jàmm salaam ki nga xamante ne ñëwul pour xamante di def di yàq di yàq doomu réew mi am nga ñoom ñaar duñu duñu bokk seen bëgg-bëgg moo tax kee bàyyi mu sedd léegi ñëwaat nañ ba fii encore man de li ma ñaan mooy yal na ci yàlla def jàmm man loolu laay li ma ñaan ñoom ñaar kenn ku ci ne xool ba xam lii nga xam ne mooy jëru réew mi li mooy jàmm réew mi ñu doxalee ko noonu loolu laa la la am li may wax maa ngi tudd Idiatou sant bari dekk caaro yi ginnaaw raay fan nga dëkk ci Guinée man Guinée man pita pita laa dëkk Timbi Madina Ninguélande centre waaw fa laa dekk salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu jëlee ki nga xam ne dafa dëkk pita Pindi Madina su ma juumul noonu la ko waxee ñu ngi fii ak beneen soxna kii tamit mu wax li nga xam ne nan la yëgee élection présidentielle yu amoon 18 octobre bi gine feete Guinée Conakry soxna si na nga def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. yow noo tudd. Habibatou Diallo. Habibatou Diallo fan nga dëkk ci Guinée. man Labe. Labe nga dëkk. waaw. élection yi amal nañ ko dimanche bi passé nan nga nan nga nan nan nga ko jàngatee. affaire bi daal daf ma metti daf ma nakari ba si kanamu yàlla man daal su ma sañoon Alpha Condé du poser troisième mandat. parce que moom néew na dès au début. troisième mandat amul. léegi noonu ñoom 2010 sàcc nañ 2015 ñu sàcc. mais 2020 bi duñ bàyyi mu sedd. dañoo bëgg mu génn mu xajal ñu. loolu lañ bëgg. yow yow yow tey jii tey jii dafa mel ni su ma la déggee eh, da nga bëgg Alpha Condé abal leen puisque da ngeen bëgg lan da ngeen bëgg lan changement ngeen bëgg wala lan ngeen bëgg. parce que dëkk bi dafa metti mhm. sakkantuma pël yi dañoo sonal pël yi dañoo sonal suñu mbokk pël mhm. parce que pël yi rek lañuy ñuy rey mhm. place pël yi dañuy daaj di sàcc di def naka su dul noonu dañoo bëgg loolu dañ dañoo bëgg réew mi dem kanam ñun loolu lañ bëgg ok jërëjëf jërëjëf kon nag mbokk dañuy dem jël ki nga xam ne moom moo nekk eh, ki jiite woon parti bi nga xam ne moom moo nekk parti bu Cellou Dalein Diallo fii ci Thiaroye ci pàkk karo yi eh, dañ koy jël moom tamit mu wax ñu li nga xam ne loolu moom moo nekk réaction ndax kenn ku ne xam na ni su ma dégloo kàddu ci ñenn ñoo xamee ni ñëw ñenn ñoo xamee ni eh, wax nañ nee nañ xëy na moom sax da doon defar ay tissu sam di ko distribuer ngir lan fas yéene joxe li nga xam ne moom moo nekk victoire Cellou Dalein Diallo parce que xëy na moom dafa yaakaaroon sax Sénégal fii dañuy voté mais malheureusement Sénégal voté wuñ kon nag ñu ngi nii ak waa ji ñu daal di ko laaj li nga xam ne loolu la jot a ci ay moyens mu mu fas yéene ko euh, taxawal ki nga xam ne moo nekk le président Cellou Dalein Diallo wala le potentiel candidat Cellou Dalein Diallo. grand ça va. Euh, ça va bien. ci loo ne. alhamdulilah Ba. yow la. Euh, man la tudd Mouhamadou Aliou Ba. gaa yi nee nañ fii defar nga fii ay t-shirt defar fii leneen ak leneen pour euh, pour pour pour pour élire euh, Cellou leen Diallo loolu noonu lan lan mën nga ci delluwaat. waaw d'accord euh, si première fois bi maa ngi nuyu ñëpp ñu leen sant ak sam bi yëpp maa ngi leen nuyu baax baax te aussi man mooy Mouhamadou Aliou Ba premier représentant union Vigop IFDG international fii à Sénégal. te aussi tisoor yi ñu doon defar c'est am na benn mouvement boo xam ne mooy soutien Alaji Cellou Dalein Diallo parce que tey tey li nag gine ñun dañuy bugg a eh, démocratie ñu dund tibit Guinée te ñun askan bi sonn nañu trop te ñun ñëpp dañu toogoo ba xam ne ne eh, Aladji Sëldé Ndéné Diallo dafa bëgg nit boo xam ne eh, Guinée nañu avancé lan moo koy avancé démocratie bi moo koy avancé parce que tey tey eh, depuis mille 2010 dafa toogoon ba ne man de du ma jégg néew Guinée bi ma dem Palais Sékou Touré ya te lii man jàmm rek la bugg te ñoo ñëpp ñu nangu ko d'accord ko si loolu parce que adduna bi yëpp seede nañu gis na si suñu victoire te victoire suñu victoire bi victoire bu leer lay doon mais bu tamee 2015 yi comme eh, eh, droit bi may na ko pour mu demaat deuxième tour ñu mayaati ko beneen deuxième mandat bi te dafa waatoon li si bokk lu mu waatoon te lii du ñu changé constitution bi. te aussi lu mu demee ba est ni mu doog changé constitution bi bu ñu ko changé ni def loo xam ne euh, ñu votal nit ñi leneen mu def leneen encore te ñooñu ñëpp amul euh, CEDEAO am na euh, Union africain am na ñoo ñëpp xam nañu te lu ñu lu ñu votoon lu ñu déclaré woon si nit ñi te du benn te loolu tamit violation de loi lay doon ci programme bi te instant nii tey si élection bi. lu ñu gën a gis loo xam ne lu ñu fi nakari si Alaji Cellé Dalein Diallo léegi gis nañ te encore si élection bi nu ñu demee te ñun am nañu preuve loo xam ne lu bari te lu fi jaaroon si affaire eh, élection bi si vote bi ay côté kankan yor nañu ay vidéo yi boo xam ne nu direct li ñu fiy jëloon foofu parce que ñun ñëpp am nañu eh, ku nekk eh, représentant ñu doon surveiller affaire yooyu noonu mais suñu représentant yi nanguñul kenn ñu fi dugg day dakk ñun ñëpp te am na fi vidéo yu leer loo xam ne luñ si am foofu te lii ma génnee te vidéo bi kankan la fi am te dañuy voté que ñi serviteurs yi nekk li ñu doon war a voté la ñii ñoo ñu dakk nii yëpp bu pare dugg si salle bi lu voté ay motu ay téeméer carte boo xam ne te président bi la ñuy voté Alpha Condé léegi en tant que représentant Cellou nee na moom moo gagné Alpha nee na moom moo gagné une fois ñu ne président Alpha Condé moom moo gagné élection yi ndaw yi nga xam ne dañoo ànd ak Cellou Dalein Diallo lan moom mooy nekk seen taxawaay yow en tant que représentant bu Guinée o Sénégal lan ngay wax xale yooyu noonu nga xam ne dañoo nekk ay xale yu góor wala nekk ay jeunes yoo xamee ne ñu ngi foofu ca Guinée Conakry une fois que ñu déclare ne Alpha Condé moom moo jël élection présidentielle yi yow ban message nga leen di wax. waaw ban message bi la ñuy wax nañu taxaw ñu défendre suñu victoire parce que Alaji ji Dalein Diallo moo gagné te ñun chaque bureau de vote day am fay boo xam ne bu ñuy voté ba pare dañuy bindi la kenn opposant ku ñu war am te loolu lépp balaa ñu ñu ñu rende ko si seeni bi te dégg fekkee ñun Alaaji Seydou Dalein Diallo suñu représentant yi déposé na ko ba pare te tey tey ni onze heures le midi instant nii mu ngi si euh, meeting bi te xam naa ne en direct am jeexagul nii bu jeexee dina leen joxe yi loo xam ne ku nekk chaque bureau de vote lu mu am te ñi fi nekk si terrain bi dañ leen ñaan ñu gën a yokk courage ñun ñu nekk eh, bitim réew dañ leen jàppale ñu leen soutenir parce que lii lu ñu war taxaw si loolu bu baax a baax waaw jokk ndef courage ñun duñu dellu ginnaaw te victoire bi incha allahu dañuy préparer te suñu victoire dina ko jot dañuy ñaan Nations Unies Union africaine Union européenne waa ñu nekk président Afrique yëpp nañu jug taxaw atte lii li mu am ni ñëpp sedda na ko te lépp lu teg na ko boti te li mu am ni victoire la gisal danañ jàll te victoire bi nañ ko taxaw bañ ko jot dañu dellu ginnaaw mukk incha ñu nekk terrain ñu nekk si biti bi réew ñu dañu joxante la ko pour suñu victoire ñu défendre ko waaw dañ ñaan ñun ñëpp ku ñi fi dee yàlla yàlla xaral leen aljanna ñu nekk leen ñu daan si jihaad ñun ñi fi nekk ñi si dees incha allah duñu dellu ginnaaw victoire ala gisal dalen incha allah ok mbokki internet yi gannaaw bi ñu dégloo waajee ñu ngi ci ak beneen tonton boo xamee ne tamit fas yéen na wax li xam ne moom moo nekk yëg-yëgam ci li nga xam ne moo nekk élection présidentielle yi am fee ca Guinée Conakry tonton ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. waaye yaa ngi ci jàmm. sant bu baax. tur bi nan la. Mamadou Wuri Ba. foo dëkk ci Guinée. ci le élection yi am dimanche bi passé ca Guinée Conakry nan nga ko jàngatee. bon ni ma ko jàngatee mooy euh, affaire jaay doole la. parce que élection ñoom dañ ko organiser woon dañ ko doon organiser bu ko jaarale si jéem koo jaarale si yoon mais xamoon nañ du tegu ci yoon ndax moom toujours dafa amoon li mu bëgg am fu mu jaarale affaire am ñu muy tànn pour ñu doxal ko mission léegi moom loolu la bëgg a jaay mais man li ma ko bëgg a wax xamal mooy lenna gis nga nguur yàlla moo ko moom moo koy dénk ku ko neex jour bu ko naree jël ci yow da koy jël si force wala nga ànd ak moom léegi moom gouverné na dix ans moo xam nit ñi bañ ñu ko wooteloon nañ ko premier wooteelaat ko deuxième léegi nag am na ñuy jóg pour changement moom warul bañ changement parce que nit ñi wooteloon nañ ko ba mu falu mu def ñaari mandat léegi nit ñi bu ñu waxee ñun dañoo soxla keneen bu mu leen jéem a baare nanaan seen yëf a ngi nii yéen a ko moom benn bakkan bu rot jaru ko ci président de la république parce que dafa war a def ci xelam ne lii mu def dix ans dina rendre compte borom bi subhanahu wa taala dina taxaw wax ak moom ni mu ko géré woon su fekkente ne moom géré woon na ko ci nu baax mu sant yàlla su fekkee c'est le cas contraire moom moo koy récolté président la jeune yi laay waxal encore ñoom ñi nga xamante ñoom dañoo wuy woo ñoom dañoo mën a wax dëgg te attey dëgg nañu xam ne yeneen bi sallallahu alayhi nee na attekat yi ñett lañu ñaari yëpp safara lañ jëm benn bi mooy dugg àjjana mooy ki xam dëgg ba gis ko mu wóor ko lii mooy dëgg mu wax dëgg bi amul foralaate amul ger amul dara mu wax dëgg mais ñeneen ñaar ñi si des safara lañ jëm yeneen ti bee ko wax mooy ki xam dëgg ba pare teg ci tànkam nëbbu ko ak keneen koo xam ne day jéem àtte te xamul saa dëgg léegi man loolu wax waa seen nañ wax dëgg te yàlla tax Alpha Condé bu leen doon di di dix milliards ci àdduna jaru ko bis na mos a ñëw ñu nekk ci biir suuf te dinañ waxi borom bi subhanahu wa taala nan lañ géré woon seen seen waaw man loolu la lu may wax seen yëg ci élection présidentielle yi nga xam ne jot nañ ko amal dimanche bi ñu génn en tant que doomu Guinée la fa xew nan nga ko jàngate ok asalaamaaleykum mbokk yi fi nekk donc euh, li ma leen di bugg a wax 2013 ba 2020 Guinée ñu ngi jooytu 2020 te 2020 egsi na mais CEDEAO boo xoolee Alpha de force bu mu imposé ba tey mosu ko changé force lay imposé te ñu dañoo sonn fu mu nekk maa ngi lancé appel si président Macky Sall ñu ngi koy sakku dimbali mu taxaw Guinée yi fi nekk ndax Guinée bu yi fi nekk si loxoom la si loxoom la ñu nekk euh, moo tax tey dañoo woote Guinée yëpp ñu ñëw si ambassade bi. parce que trop c'est trop dañoo toll foo xamante ne wax dëgg yàlla mënuñu toog di xool benn président dictature ak euh, simple cinquante personnes boo xamante ne ñu jël Guinée yëpp en notage loolu dafa rusloo donc tolloon nañ foo xamante ne ñu ngi sàkku dimbali si Union africaine CEDEAO président Macky Sall si ñëpp képp koo ñu mun a dimbali ñu ngi sàkku ñaan mu dimbal ñu parce que egg nañ foo xamante ne màgg amatul fu muy wax xale amatul fu muy wax képp ku wax ñu tiré la baal te du mujj fen donc euh, ñun bu ñu réagir rek dañuy wax ne nii xëy na ñoom ñoo ko ngemba moo tax ñu sàkk dimbali te dañu bugg eh, message bi ngeen jàllale ko fépp fu mu war a egg ñu taxaw ba ñu delluwaat suñu victoire bi parce que ñëpp xam nañ ni président bi daleen gagné na 100 pour cent si élection bi donc loolu moo tax ñu mobiliser wu ñu mun a dem si ambassade bi pour ñu ñàkk si suñu victoire bi.